Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wow ini wa rasul Irada gi yëpp bàyyiwuñu kenn dala ko sëñ abdul Latif mbacke ba ci ki ci mujj ñëpp ñu ngi leen di wax salaamaaleykum wa rahmatullah ma samba Mar ñi koy nuyu Cheikh mbacke li Afrique South Africa ñi koy nuyu ak Serigne Ñang mi nga ci eh, mom la indi walé am ni morom ma ngi ni Moustapha Diouf Serigne Momour Bawo sëñ Moustapha Guèye Côte d'Ivoire sëñ Jibril Guèye sëriñ Massaer Mbuub Dakaru sëñ Cheikh Diop bàyyiwuñu bàyyiwuñu kenn daal ñu ngi nuyu ñëpp waaw xam nga dégol xawma nakalaati Adolf Hitler boo demee ci benn téeréem bu mu bind tudde ko kifaax yi kifaax nañ ko ci arab boo demee ci internet boobu léegi faax yi da ko gis kaaf faa alif xaalonk ak yagu ko xëcc yarut boo bindee ki faax yi rek di nga gis téere boobu waaye léeg-léeg nag ñu waxal itinéraire yu bari yoo xam ne fekk itinéraire defu ko de léeg-léeg ñu waxal itinéraire lu bari fekk itinéraire defu ko ndax itinéraire li mu def yëpp da kaa bind ci benn téere te di ko ki faax yi manam Adolf Hitler ab allemand la Jerman la xam nga nyari yi ñaari réew lañ am moy Nimsa ak alma Nimsa ak alma ño bokk lak ño bokk ada comme gane Gambie ak Senegal askan boo fekk Gambie bo ñëwee senegal da ko fi fekk askan boo fekk senegal bo demé Gambie da ko fekk non nak la Nimsa mel ak ak allemand mom nak ci sa gi la juddo fi la papam dekon bayam nak dafa gaawoon de Hitler jàng foofu ba war faa jóge jàll ci allemand gu mag ga war dem jangi yalla nak daf ko mayon ci walu dessin dessin mom ku ci mënoon Hitler amul ci jamono jam jam nek léegi nag bi mu demee ci Allemagne gu mag ga mu dem ci benn école di fa bindu pour jàng te école booba dessin lañ fay jàngale waaye bi defee concours dessiné moo man sax professeur ya fay jàngale dessiné directeur école bi nag Abiya Oud la mu dàq ko ne ko yow amoo capacité jàng fii Hitler am na xaritam yu ko leeral ne lu dëgg waaye boo xoolee ci Europe ba mu daj ñi ko ak ñëpp ñooy waa kër ko ba ñooy ñooy ñooy yahudi ñooy siif yi ñoo nekk ci or yi ñoo nekk ci jamaa yi ñoo nekk ci miin yi ñuy gas ñoo nekk ci banque yi ñoo yore ñoo yore njàngale mi ñoo yore paj mi ñoo yore lépp ñoom banu Israël di nag da nga cee bokkul loolu moo tax Hitler dem ubbi atelier boppam di dem di jàng yeneen matière ci yeneen école yi di dessiner di ko jaay mais lépp lu mu dessiner rek yahud yooyu dañuy ñëw jënd ko ci njëg bon buñ demee dindi adresse bi def ci seen bos yóbbu ko ci foire ba jaay ko lu seer ba benn bis Hitler ne leen yéen man sama objet yi may dessiné moom ngeen di fab dem di ko defaat adressé ko seen bopp te man li ngeen koy jëndee ci man du jarul dara te yéen su ngeen demee da ngeen koy jaay lu seer gaa yi xas ko daal da ko yow bokkoo ci sàbbu daal muxtaar yow da ngaa dooj yow yow ko yow daxaa war a dellu nim saag nga dëkkoon nga nekkoon sax ñuy wax nga lijjanti ay lu mu la war a fay ak lu ñu la a ta fay yow dafa nga ne sa sa yi mos dinañ dinañ ki yaakaar nga ñu def ci sa sa sa adresse te ne ko yahut loolu nag naqari Hitler Hitler seetlu ne Europe ba mu daj daal foo dugg ci affaire liggéey muy liggéey bu fort yahud yi ñoo ko yore mu gàddaay ne mu gàddaay ne day jógewaat allemand mu demaat nimsa allemand ak nimsa nag dañoo taqaloo te ñoo bokk làkk ba mu demee nimsa nag yàlla def ndeysaan mu fekk yaayam dafa am kanseeru ween mooy ween yooyu nekk aw ay donj ah indiwaale na xaalis mu jël ko dem di ko yóbbu ca docteur ya ndekete docteur bayit ab yahud la te noonu ñu defee seen mbaal yi nga xam ne dañuy jokko jolaate ci àddina bi booba tam defoon nañ ko buñ la xasee noonu foo dem am na ko fa taxaw dina xaar boo gisee fekk ko fa itileer yóbbu yaayam te docteur ba docteur ba jox ko garab gu ko rey ba noppi nag noppiwul moom docteur bi dafa wax ne ko daf ne daf ne man maa juumale garab yi man maa juumale garab yi moo tax ndaw si dee te booba loolu ba ñu koon ci docteur léegi nag iti bu amutal lu dul day ndax baay ba dee na docteur yi banu Israël ba rey na day ja aha mu daal dina nag jàmm moom duut amati ci noonu la nekk ci noon la nekk ci noonu la nekk ba première guerre mondiale bi di déclaré mu daal di dem def tatawo dugg ci almaa yi jóge nim saa dugg ci almaa yi di jàppale ci xeex bi si mu meree nag banu Israël ba taxoon mu wax noonu ne moom lay defar xaalis boo xam ne Europe yëpp koy bokk banu Israël ñoom ñoo yore woon waax yi ñuy defaree bato yi ñoo yore woon usines yi ñuy defaree oto yeeg yooyu ñoo yore woon itam usines yi defar munition bal yi ñuy tiire ñoo ko yoree ñoo yore ñi moom daal lépp ñoo yore armement yi ñu fañ koy defaree ndax ñooy yore xaalis bi ñu yore or bu ñu yore banque yi ñoo yore lu nek ñoo koy financé première guerre mondiale bañ démé ba allemand digënté ak Paris des 30 km légui banu Israël daal di tej seen isini lank baña tay défar armée ci côté allemand waaye ñu ko def nak ci côté France ñu ko fay défar ñu ko défar ci côté Angleterre ndax fepp ñofa nek Europe gépp daal fu nek seen usines yaangi dox ñu daal tej usines yi almaane dootu dox almay ñak arme armoma gaay daane leen bi leen gars yi leen nak tek leen ay tegandaay yu metti yahudi nak daal di tàmbali drok drogue ci bir alman duggal fa ay bar xëy nit ñi ci ak moy yalla jigéen ñi jaay seen bop loolu daal mu naqari dëgg mu lool Itali Itali mu du ci dara Itali delluwaat ca armée ba nekkat ca ñoom ba mu demee nag ba yàlla def mu nekk nag kilifa ca armée ba léegi nag mu daal taxaw nag ne mbooleem luy usine bu daan defar armement teñ tëjoon ko bu mu tijji daal defar usine yi boppam teg ne Allemagne daal benn chiffre du fi amati lenn lu muy def ndax yëpp danga ngeen di fonto daal ne léegi or bi ngeen di garanté xaalis ñun léegi sunub xaalis noo koy garantéel suñu bopp waaye dañ ci yëlëb yow audi Allemagne yi ñu njëkk a yeewu ci noonu nga xam ne nii lay yahudi yi noté woon Europe ñoo ci njëkk a yeewu Hitler nag bu muy bind plan boobu moom dafa waxoon ne Europe gépp nañ bokk benn xaalis bokk benn garantie ñu yoral ko suñu bopp ñun yow ñun ñun européen yi mais yow di bañatee yor banque yi yore taayu or yi ak taayu jaman yi di garantie xaalis loolu moom la ko naroon a defee looloo taxu nit mu nar ko def waaye yàlla def deuxième guerre mondiale itam mu ñàkk ko waaye Hitler su fekkoonte ni amoon na deuxième guerre mondiale bi ba noppi moom moom benn benn askan la amaloon affaire ñoom ñoom ko taxoon di xeex moo yahudi moom dafa naroon a wax ne dafa waxoon ne àddina ba mu daj kap boo ko wëree foo dem banque ba fa nekk ay yahudi koy dif mooy nag lay day def xaalis boo xam ne day daanal yahudi complètement doon ñoom xaalis fenn ci àddina bi delloo daal delloo leen fa seen maam yi dëkkoon loolu la doon jiim waaye defu ko woon sax pour ne day coloniser France rek moom eh, compagnie ya ut gi yi nga xam ne ñoom ñoo yore woon banque àddina bi ñoo yore woon taayi or yeeg taayi jamaa yeeg stock yi ñoom ñëpp ñoom da leen doon xeex te naru ko ne yemale Allemagne ndax dafa xool ne fépp foo gis ci àddina bi rek banque dafa dox ab yowu de ko moom loolu la doon bëgg a xeex moom looloo taxoon mu def mu def loolu ci biir guerre bi nag waxoon na ne yahud yi moom ah dañ leen di jeexal waaye kenn du fi des tëj na leen rey na leen dugal na leen ci ay magasin tëj leen di kaso lu leen def na leen ko mais da ngay seet yahud yi ak plan bi ñuy doxal guerre bi anglais yi dee nañ ci guerre bi français yi dee nañ ci. guerre bi union soviétique dee na ci guerre bi Sénégal yi sax dee nañ ci waaye bu guerre bi doo nga ci am bénéfice ndax ñoom lañu remboursé ay alal ji dul jeex du xaaj dagal leen ci réew àddina yëpp gàmbu di leen far ah di leen jàppale ba moo indi lii ba geeru Gaza bi ngay gis ma nga déparé foofa waaye ñoom dañu doon victimiser wu di wax ne ñun dong lañ sonal ñun dong lañ def lii ñun dong lañ tëj ci kaso ñun leen lii almaa yi def nañ lii almaa yi ñëpp lañ ko def sunu maam yi sax bokk nañ ndax tubaab yi daal dafa yóbbu woon te almaa yi kuñ ma sonal kuñ kuñ jàpp kuñ jàpp foofu torturé nañ la mënoo ci dara waaw waaye Israël nag moo yenu bànga bi ne moom ñoom dong lañ def ñoom dong lañ nattu ñoom dong lañ doon torturé ñoom noonu noonu mais xaalis bi moom euh, bi ko Hitler di def da ko bëggoon a def pour contrecarrer yahudi ba dootuñu amati ay banque ci addina bi am na benn téere bu ñuy wax kifaax yi téere arab la boo duggee ci internet bi da nga ko gis di nga gën a xam kan mooy Adolf Hitler